man day def bu ma waxee ci kaw ñu ne day xuloo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer ma di xamal nag ni leen xuloo ak mer dara duma ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko rek ay xuloo te man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoola du ma xuloog mag du ma xuloog ndaw ngir yi war a tax a xuloo moom du jaar sama digg ak kenn xëccoo njariñ wala xëccoo ja moom doo ngay téye déggoo ba wax tax di xuloo te war na ci yàlla duma ko dafa kenn mer itam bu ngeen gisee ne jàppee ne mer naa déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënuma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu it dafa may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du teer danaa xam ne inna minal mujrimina mun taqimoon a yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it bu la naqaree war nga ko war ngaa mën a gàttal naqar wa yëgul fen man du ma mer du ma xuloo dama bëgg lan loolu leer leen ma bëgg nag ñu wóor leen cëng ni sëñ Tuubaa mi yaakaar lu ñu moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal liggéey la ñuy digal tepp sunu njaambur la ñuy ak jub la ñuy ku yaakaar du kenn nag la mu digle danga koy sàmm te fas yéene di ko def nan góor góorlu ci sàmm ndigal yi sëñ Tuubaa yi moo nuy may ndamal tey moo nuy may ndamal ëllëg man nag maa ngi wëlbatiku ci kattanam ak dara jaam di ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moom moom lépp ci soxla wu lenn mu defal nu yërmande defal nu ndimbal naataanga moom bëgg nañu ko lool danañu ko ñaan waaye naataanga doo boo ma sa gis rek bekkoore ca topp naataanga doo ma sa gis daa mujj wow koŋ xéewal rek a mat a ñaan yàlla nañu ko yàlla defal defal ko réew defal ko mboolem jullit ñi xéewal nag ma leeral leen mooy lan mooy loo xam ne foo ko fekk day tooy xib terrain ba nga xam ne moom moo ko moo sax moo ko saxal reen bi bëtu nit du ca tege xam-xamu doomu aadama yëggu ci ba mën koo dog loolu mooy xewil yàlla nañu ko yàlla defal te saxal ko ci réew te defal ko boolem jullit ñëpp ginnaaw bu ma xamee ne nag jottali naa leen lii nga xam ne mooy sama yéene yéene ko ñëpp ñaanal leen ko ma di leen wax nag laay joo xam ne néewaa lool sëriñ